di nuyu également monsieur le ministre. dëgg euh, di leen sant di leen gërëm bu ngeen gisee nag ma lii sax du ma ko faral di def. ñun ñun tam duñ ko faral di def. <laughs> mais c'est la deuxième fois. waaw ñun ñun duñu di seetaan. ay plateau de télévision. Mm-hmm. ñuy def le procès de la communication de la mouvance présidentielle ou euh, euh, de. de l'Alliance pour la République. or mm-hmm. li ma bëggoon préciser. Mm-hmm. c'est qu'il faudrait expliquer aux Sénégalais quelle est la méthode de saisine et d'invitation de ceux-là qui sont sur les plateaux par les journalistes. Mmh. Moi, je me souviens, je m'en étais offusqué à un moment donné. J'avais écrit à toutes les rédactions de télévision, de presse écrite et de radio, ainsi qu'au chef, euh, qu'au qu directeur de, de, de ces organes de presse, pour leur préciser les voies par lesquelles il faut passer pour avoir des préposés à la communication. Mmh. Mais je suis désolé, on ne peut pas à tout moment euh, inviter mënuñu mënuñu à tout moment nga invité ki nga xam ni moo nekk sa xel wala moom la rédaction bi nekk ci xelam sans pour autant toucher aucune instance ni de Benno ni de l'APR pour après se mettre à faire le procès de la communication. Mmh. Je ne suis pas d'accord. mais nous sommes là nous défendons. Ouais, mais mais monsieur Thiam monsieur monsieur mais monsieur Thiam invitation yi aussi actualité moo koy moo koy guidé. mënuloo par exemple dara xew na nga ni noo naa jaar ci APR wala naa jaar ci Mayel wala naa jaar ci keneen concerné bi ngay waxal. mais en la moment là en ce moment là. waaw le parallélisme des formes. lan nga bëgg wax parallélisme des forme lan nga si bëgg a wax. voilà le parallélisme des formes li ma bëgg a wax mooy. waaw soo jëlee une voie informelle ça ne vous donne pas le droit de faire le procès de l'institution l'Alliance pour la République c'est une institution et, vous le voulez réellement am kenn koo xam ni il parle il peut valablement parler au nom de l'Alliance pour la République ou au nom de Benno il y a des instances que vous n'ignorez pas mais mais Mayel Mayel Mayel Mayel s'il vous plaît s'il vous plaît yaw yow li ñu lay wax nii yow yow ci seen biir ci seen biir dégg naa Mame Mbaye Niang wax ko waxuma journaliste bu ko wax de dégg naa Mame mbay ñaa toog ci plateau bi wax ko wax ne ñi nga xam ne jóguñu di défendre président wala di wax ak ak la euh, les journalistes gorewuñu c'est-à-dire li ma lay wax ni du moom rek ko wax liir naa benn benn benn article boo xam ni Baara Ndiaye mi ngi bokk ci APR wax na ko. donc loolu nga xam ne yéen ci seen biir yéen a ko wax mais bu ko journaliste yi waxee bu ko jàppee procès seen xalaat la bu ñu wax. mais je vous en non je vous en je, vous en nga may ma rek ma daaneel foofu. waaw d' accord nga daaneel foofu non bàyyi bàyyi bàyyi Thierno non attends s'il vous plaît. xaaral non bàyyi d' accord d' accord mën nga daaneel s'il te plaît. daaneel waaw dootu dellu si non je voudrais dire. Ah. quand moi je vois devant un plateau de télévision. Mm-hmm. je suis désolé mon ami euh, Babacar Ndiaye Justin. Mm-hmm. quand je suis devant un plateau de télévision et qu'on confine le personnel politique de communication de l'APR à trois personnes ce n'est pas objectif. d' accord d' accord euh, non s' il vous plaît Rastel s' il vous plaît. oui oui d' accord man euh, li ma bëgg a préciser rek mooy <coughs> man je ne parle pas de la communication de l'APR. Mhm. je suis de la majorité présidentielle affaire gouvernement bi ak les actions du gouvernement foofu laa wax ne gars yi am na benn problème ci communication bi te li may wax ci terrain bi laa ko jëlee parce que man liggéey naa lu bëri ci affaire élection présidentielle bi. di digg ci communication président la république loo xam ne maa ko seqoon ak moom di ko dox ci biir média yi mais li may dégg ci fu ma dem mooy seen gars yi ñu ci bëri bu ñu leen invité du ñu ñëw ci plateau bi. mais loolu Mayel moo la ko gën a xam moom moo la ko gën a xam beneen bi l'autre ah. jour man dama toog Cheikh bu Diop ñi ngi may déglu ah les activités les gars de pétrole du monde. tout à fait toog invité ma man dañ maa invité nii rek ma dem. mais ba ma demee bi ma paree li may dégg dañ naan yow musulmi dañ invité mais sa gars yi bu ñu leen wooyee du ñu ñëw la tax nag du ñu ñëw ñoo ko xam. non xamuñu ko mooy li wax président la république ci boppam. moom ci boppam toog na fustige ko. Mayel ci affaire communication s'il vous plaît Mayel. lu ma fekkee man waaw ci ma fekkee mu fustige ko. allo Mayel d'accord Mayel. alors mu mel ni dem na euh, mais moom à sa décharge wax dëgg yàlla. moom moom à sa décharge wax dëgg yàlla. li mu wax du tere ñu nangul ko loolu. du tere ñu euh, mais benn détail nag laay wax ci lii ma euh, monsieur Pape Mayel. parce que daf la interpellé. oui d'une part mais de façon aimable hein, parce que Pape Mayel est un homme très très correct dans ses relations avec les gens. Mhm. pas plus que ce matin on s'est croisés. Mhm. donc euh, c'est un homme très correct euh, c'est pas une interpellation agressive pas du tout. il a fait quelques remarques même je dis que un je ne confine pas la communication. De, de, de du système à trois au niveau de trois personnes muy benn mais trois personnes yooyu dama ne ñoo gën a fës ñooy dem au charbon. Ah.